waaw kay léegi ñu ngi a jël kon ci fi mu waxee téere yi ak euh, ndox yooyu nga xam ne euh, ndox yu làqu la léegi loo tax mu ne woon euh, quels étaient ce qu'il y avait de plus important dans la case teelu nañ ma xamal ne loolu noonu mooy li ëpp solo ci néeg bi léegi de fait ci noonu elle contenait les gris-gris ndox yooyu noonu ak bagage yooyu noonu te gën a ëpp solo ci néeg bi euh, amoon na ay téere mu ni ces liquides mystérieux ndox yu làq yooyu ndox yooyu nga xam ne am na lu mu ki qui éloigne les mauvais esprits moo daan dàq euh, xalaat yu bon yi euh, moo daan dàq xalaat yu bon yi pour peu qu'on s'en enduise qu'on s'en qu'on s'en pour euh, pour peu qu'on s'en enduise te euh, tuut lañ ci laal waaw pour peu qu'on s'en enduise le corps te tuut lañ ci laal ci yaram maanaam saafara yooyu téere yooyu tuuti rek nga ci laal ci sa yaram tuuti rek tuuti rek doy na tuuti rek nga ci laal sa yaram pour peu qu'on s'en enduise le corps tuuti rek nga ci laal sa yaram le rendre invulnérable au maléfice su ko defee mu protéger la mu dàqal la musiba yi mhm. mu def mu def euh, musiba yi ñu néew doole musiba yi lay def ñu néew doole mu def musiba yi ñu néew doole ci yow maanaam mu dàqal la musiba yi rek à tous les maléfices mboole musiba yëpp mon père mon père avant de se de se coucher sama papa njëkk muy tëdd ne manquez jamais de s'enduire le corps du wuute laal laal laal ci yaramam. du lii du wute laal yaramam du wala boog du wute laal euh, yaram wa du wute laal ci puissant issi laal fii maanam day tibb fii ci ndox mi puissant la tibbaat fële comme ça affaire yi bari marmite yi muy def dafa bari day laal fee laal fële day tibb fee tibb fee car chaque liquide ndax ndox mu ne chaque gris gris téere bu nekk à sa propriété particulière am na mbir boppam am na yëfi boppam daal mais quelle vertu yi précise waaye nag xawma dëgg-dëgg ban ban ngëneel xaw moon ngëneel dëgg-dëgg fu mu ne daal wala xaw moon dëgg-dëgg dëgg-dëgg lan ci lan la baax je wu xaw ma ko woon j'ai quitté mon père trop sori sama papa de la véranda sous laquelle je ci ëtt bi nga xam ne fa la daan fowee j'avais directement vu sur l'atelier j'avais directement vu sur l'atelier daan naa fa mën a gis atelier bi fi ma daan fowee ëtti bu ndaw bi ma daan fowee noonu daan naa fa daan naa mën a janoog waa atelier bi et en retour on avait directement l'œil sur moi ñoom it nañ ma daan nañ ma gis daan nañ daan nañ ma mën a gis nii cet atelier était la maîtresse pièce de notre concession cet atelier était la maîtresse pièce de notre concession atelier boobu moo yore woon suñu kër atelier bi mu ñu doon dundal maître pièce mooy kuy kuy gérer kuy kuy joxe dépense gérer lépp daal maanaam atelier bi daal moo daan moo yoroon kër gi moo daan dundal kër gi mon père s'y tenait généralement sam pap foofu la ëpp lu daan nekk dirigeant le travail moo daan jiite liggéey bi forgeant lui-même moom ci moom moo daan tëgg les pièces principales liggéey yi ëpp maanaa yi ëpp solo sama papa moo ko daan liggéey ou réparant les mécaniques délicates moo daan defaraat tamit paan yi gën a garaaw maanaam jumtukaay yi gën a naqaree defar paan yooyu moo koy defaraat il y recevait foofu la daan teeroo foofu la daan dalalee ami xarit et client ak clients yi et si bien qu'il donte sax daan na ju daan na ñëw daan na jóge de cet atelier ci atelier boobu un bruit ab bruit donte daan na fa juge ca atelier boobu ab bruit qui commençait avec le jour nga xam day tàmbali ci bés bi day tàmbali bu jant bi génnee rek lay tàmbali coow yi di tàmbali jóge ci atelier bi et ne wi du dakk lu dul ci guddi gi daal kon li mu foofu nit ñi bari woon nañ foofu ci atelier bi nit ñi dañ fa daan ñëw bu baree baree bare chaque kenn ku nekk au surplus ca nu mu gën kawe ki entré ci nu mu gën a bare kenn ku nekk ci ni mu gën a bare wala ni mu gën a yokkoo qui entrait dans notre concession ñu daan dugg ci suñu kër et qui en sorte ak di génn maanaam nag kenn ku ne daal nan nga jàppee noonu lay gën a baree rek noonu lañ daan duggee ci kër gi ak daan génne waaw kenn ku nekk nu mu gën a baree rek buy dugg ci kër gi ak di génn devait traverser l' atelier dañ daan jaar ci atelier bi du un va et vient perpétuel nga xam ne dem dikk bi dafa saxoon perpétuel mooy éternel nga xam ne dem dikk bi dafa saxoon encore que personne ne parut particulièrement pressé te kenn nurutoon ko yàkkamti nit ñi nuruñu woon ko ñu yàkkamti encore que chaque eut son mot à dire kenn ku nekk dafa mel ni amoon nga kàddu goo goo wax goo war a wax et s'attarder volontiers daan nañ yéexantalu ci sax ci seen coobare à suivre des yeux le travail de la forge su ko defee seen ñuy topp ci seeni bët yi liggéeyu mbaar mi parfois je je m'approchais yenn saa yi man ma jege attiré par la lueur du foyer nga xam ne li ma daan xëcc mooy tàkk-tàkku euh, leeraay bi bàyyeekoo ci tàkk-tàkk loolu ma daan xëcc mais j'entrais rarement waaye lu néew laa daan dugg car tout sa monde m'intimidait ndax ñi nekkoon ñëpp dañ ma daan dañ ma daan bu daal dañ ma daan sonal dañ ma daan dañ ma daan intimider dañ ma daan dañ ma daan sonal tout ce monde m'intimider fort dañ ma daan bu baax et je me sauvais daan naa rëcc dès qu'on cherchait à se saisir de mois buñ ma daan jéem a jàpp rek daan naa rëcc mon domaine n'était pas encore la sama barab nekkutoon foofu ce n'est que plus tard. et j'ai pris l'habitude de m'accroupir dans l'atelier ce n'est que beaucoup plus tard ci bi mu gënee ca kanam ca ba mu yee ba ca kanam a kanam que j'ai appris ci laa que j'ai pris la que j'ai pris laa am baax laa aadawoo da m'accroupir di toog dans l'atelier ci atelier ba ginnaaw bi mu yàggee ba yàgg laa doon toog ci atelier bi et de regarder briller le feu de la force may may may di xool ni muy tàkkee nii Euh, tàkk-tàkku mbaar mi tàkk-tàkk bi ni muy melxetee ci mbaar mi moo demee suma barab en ci jamono boobu noonu c'était la véranda ca véranda baloon ca tuba qui entourait la case de mon père bi nga xam moo wër sama néegu papa c'était la case de ma mère moo nekkoon sama néegu yaay c'était l'oranger planté moo nekkoon euh, euh, garab gi garabu orange bi bi ñu jëmbët au centre de la concession ci diggu ëtt bi kon yooyu daal moo nekkoon sama barab barab sama barab daal jamono yooyu noonu nekk gutoon mbaar ma ndax mbaar ma ci at yi ca kanama a kanam a kanam laa fa di am aada di fa toog di xool mel xeti tàkk-tàkk mbaar mi waaye jamono yooyu daal lii moo nekkoon sama barab ëtt bi wër sama néeg papa euh, ak sama néeg yaay ak bant garab gi nga xam ne daa nekk ci ëtt bi yooyu daal ñoo nekkoon sama sama sama sama sama sama sama domaine sama néeg yaay sama néeg papa ak fi garabu orange gi nga xam dafa nekk ci diggante bi sitôt qu'on traversé l'atelier saa suñu jéggee atelier bi et la porte du fond nga jéggi dem ba ca biir biir nga jéggi buntu ba ca mujjantal ba buntu ba ca cat ba on apercevait l'oranger da nga mën a seen euh, garabu orange bi on apercevait l'oranger l'arbre garab gi euh, si je le compare au géants de nos forêts su fekkoon dama ko doon gam-gamle ak yu mag yi nekk ci suñu àll yi n'était pas très grand du rëytoon kon mais il tombait de sa masse waaye nag doon na rotal ci lu bari de feuilles vernissées ci feuilles mi ñu verni daal na waddal nag ay feuilles ay ay feuilles yu bare bare bare bari yoo xam dañ koo verni ak une ombre compacte ak euh, keppaar gu dëll qui éloignait la chaleur nga xam danaan soril tàngaay wi quand il fleurissait su demee ba meññi une odeur entêtante se répandait tout la concession ab euh, xet bu bu bu dëgër bopp xet bu fës daan na yaatu ci mboolem kër gi quand après quand apparaissaient les fruits bu demee ba meññeetam bi di feeñ il nous était tout juste permis de les regarder liñ ñu mayoon mooy ñu xool rek ñu xool dong lan ñu mayoon yam leen ci xool nous devions attendre danoo war a xaar patiemment ci ndànku qu'il puisse miir ba mu gën a ñor mon père sam papa alors sam alors kii en tant que chef de famille sam papa mi nga xam moo nekkoon jiitu famille et chef d'une innombrable famille nekk euh, chef tamit ci famille bu bu boo xam ne kenn xamul fu mu yam gouverner la concession moo doon jiite kër gi donne l'ordre de les cueillir moo daan joxe ndigalu ñu witti ko les hommes qui faisaient cette cueillette nit ñi nga xam ne ñoo daan def witti bi apporté au fur à mesure ñoo daan indi ci euh, ci nu mu gën a yokkoo les paniers à mon père yi ñoo ko daan jox sam papa ñooñu nga xam ne ñoom lañ jox ndigal ñu ñu witt suñu taaba noppi dañ daan indil sam papa ñoom nag noonu lañ koy jàppoo rek et celui euh, bu dee sa bu léegi-léeg su ko defee sam moom les répartisseurs mu séddale ko. entre les habitants ñi dëkk de la concession concession ci kër gi ñooñu lu koy séddale ses voisins ak dëkkandoo yi et ses clients ak ay clients après quoi euh, ginnaaw loolu nag il nous était permis de puiser dans les paniers mu daan ñu jox ndigal nag ñu ñu tibb ci panier bi mu daan ñu jox nag ndigal ñu tibb ci panier bi et à discrétion ñu def ko nag ndànk mon père facilement sa papa daan joxe ci lu gaaw. moom joxe moom da cee gaawoon et même avec prodigalité ay même avec générosité kon prodigalité fii sensu générosité générosité la am daan def ndax dafa tabe bu ëpp quiconque se présenter partager nos repas képp koo xam ne teewoon na rek da daan ay añam sunu añ yi da ko daan séddoog ñun ku ñëw rek séddoog sunu añ et comme je ne mangeais comme daanu mun lekk lu bari daanu mun lekk lu bari aussi vite que ses invités euh, mën a gaawee ni. Euh, invité bi juste risqué dama mujjoon am jafe-jafe de demeurer ci sax éternellement sax ci sax bu yàgg sur ma ci sama xiif dama amoon jafe-jafe sax ci lu yàgg ci sama xiif si ma mère n'eût pris la précaution su fekkoon sama yaay jëlutoon matuwaayam de réserver ma part ci begganil ma dara begganil ma sama wàll kon doon na gën a metti ci ma doon naa kon euh, alku wala ndax man amoon naa jafe-jafe toog lu yàgg xiif doon na métti ci man waaye bu dul sama yaay jël gim jël euh, ay matuwaayam di ma beggandil sama wàll naa ma mettu mettuwaay ici nekkal fii toogal nii ma disais loolu la ma daan wax et nga lekk car ton au fou sa papa dafa dof elle ne voyait pas d'un trou bon ney ses invités invités elle ne voyait pas d'un bon ney ses invités sama yaay moom gisutoon ab bët bu baax ci invité yi ci ñi ñuy woo moom xoolewu leen woon bët bu baax maanaam nekkutoon di rafet ko di ko rafetlu daal di rafetlu euh, gan yi ñuy woo ñu ñu xewlu un peu bien nombreux à son gré moom dafa jàppoon dañoo bari daal sama yaay daal dafa jàppoon dañoo bari un peu bien pressé te dañoo xaw dañoo xaw a yàkkamti de puiser dans le plat ci gaaw rek tibb ci palaat bi moom père sama papa lui mangeait fort peu sama papa li mu daan lekk bëriwul il était d'une extrême sobriété moom dafa meloon noo xam ne dafa bëriwutoon lu ko lu ko sonal daal dafa nekkoon ci beneen. beneen côté la nekkoon moom daal ñu doon dundee dafa yéeme nous habitons à bord du du chemin de fer dañoo dëkkoon ci watu chemin euh, de fer bi ci dañoo fi ñu dëkkoon ak raay bi dafa dendoon les trains euh, longeaient la barrière de réseau tressé su ko defee train yi euh, dañuy daan laal dañ daan jege dañ daan dem ba laal li nga xam ne moom mooy réseau yi nga xam ne moom lañ moo moo waroon suñu kër gi dañ ko laal xaw a laal dafa jege woon lool lool lool et là l'on sait à vrai dire euh, euh, wala ñu yem fee rek ñu yem ci sobriété après beneen yoon ñu yeggale ko waaw na sa mbokk njëkk a jub yàlla na yàlla barkeel sunu xam-xam.